assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mi na def ça va ça bien naka waa Touba mbaa ñu ngi ci jàmm e, man la Kémo Silla Sénégal Casamance région Kolda département département de Vélingara village de Kabendou mais actuellement maa ngi France wala man euh, barki démb e, dama wàcc liggéey ñibbi ci si kër gi Eh, nii la sango fay sama eh, julli ñu ñu ma raw wattu yi ñu ma raw fay lépp ba pare añ après tëdd balaa ma tëdd nag tout le temps balaa may tëdd damay joggu souvent ma julli ñaari ñaari waxtu naafile ñaari waxtu bu ma ko jullee après ci lay tëdd après bu ma tëdd nag ma ngënd depuis ma ngënd eh, yàlla wonal na ma campagne électorale bi buy ñëw ni deux mille vingt quatre dañu defu voté ba pare Ousmane Sonko moo gagné Ousmane Sonko dafa gagné après euh, jàng bi fête bi ko maanaam fête bi mooy jàng bi ak sarax ak jàngal ko yaas ñaanal ko ñëpp Tuuba lañ ko defee léegi nag après bu mu demee Touba ñun yëpp ñu ngi foofu mbooloo askan askan Sénégal yëpp ñu ngi ci ginnaaw Ousmane Sonko Touba Touba dafa feesi del surtout kër gi lu ñu def di ñaan noonu kër gi foofu dafa feesi del comprend nga léegi après buntu bi buntu kër gi bi mel ni comme xaw aw grillage la quoi léegi ñoom Macky Sall nguuru Macky Sall ak Macky Sall sax moo nekkee ci kanam dañoo ñëw fekke ñu ci kër gi foofu mais mënuñu dugg fekke dañuy fekke euh, dañu dañu toj euh, porte bu euh, bu mag bi bunt bunt bu mag bi dañ ko toj léegi ñi taxaw ci buntu kër gi mais nu ñu ñëwee comme seen yaay nu ñu leen juree noonu la ñuy ñëwee après ñu ngi yoro flèche ko xam nga comme ñu suñu suñu làkki jaaxanke dañu ne tambo tambo xam nga ay fu njëkk yi xeexkat yi kii la sallallahu alayhi wa sallam kii bi nu ñuy yoroon ni nekk di eh, di di jàpp ni comme ab banta mais weñ moo nekke ci boppam di di eh, sandi ni di bon eh, nit yi loolu la ñuy yoro léegi après bu ñu commencé di sandi fiw fiw fiw fiw après mbooloo bi tas ñëpp daw man ci mbooloo bi laa bokk sax léegi bu ma daw daw daw daw daw après léegi fu ma dugg pour euh, ñu bañ a laal. ma dugg ci néeg bi rek abbu néeg ñax la quoi ma fekkee Serigne tala muy tëdd ci tappi bi mu ngi jàng kaamil léegi bu ma ko fekkee mu ngi jàng kaamil mais néeg bi tappi bi ak euh, tapis bi fu muy julli ak xurus bi lu mu yoro ak kaamil bi ak mm, euh, basin bi lu lu mu sol ak mbaxana bi ak kaala bi ak satala bi yépp bu weex tal la bu weex tal après ci la ma ne Mouhamed looy daw ma ne ko ah man daal eh, ñu ngi ci eh, ci ñaan ki eh, nu mu tudd Ousmane Sonko fale waa Macky Sall ñoom ñoo ñëw du ñu attaqué foofu di sandi flèche loolu moo tax ma daw ñëw fii pour ñu pour ñu bañ maa rey mu ne ma ah mu ne ma coow bi dina deñ man nii sax maa ngi nii di wax ak sama maam mu ne gëstul sa gannaaw ma gëstu xool ci kaw ma gis Serigne ma gis ko mu ngi taxaw mu ngi koy ne Sëriñ Murtala dama ñëw sa kaw yónni la nga dem gisante ak nguur Sénégal nga ne leen coow bi lu fo nekk nañu bàyyi Sénégal am jàmm parce que xale bi dañ ko tuumal bu ñu bàyyil coow bi bu ñu demee xale bi ci tribunal Sénégal dootul am jàmm ba ba ba ilaa yombi diini Sénégal dootul am jàmm mais problème bi yow kese yow yaa mën a jóg problème bi bàyyi ñi bàyyi affaire bi carrément bàyyi xale bi mu continuer addunam eh, ak dundam ak politique parce que nit ku jub la nii laa ngent après Sëriñ Mutala neene ne Mohamed toogal fi nga xaar ma sama maam moo ma yónni nii la jóg soldalam woo délégation yi ñi dem gisante nguur Sénégal affaire bi nii la fay billahi wal kitaabi billahi wallahi tallahi man musuma jàng naa xuraan mais soriwuma eh, awuma politique du question ne dama far ci Ousmane Sonko du question lool sax Ousmane Sonko eh, dama ko bëgg rek te yàlla tax mais du question ne dama xam politique wala dugg ci leneen déedéet man musuma dugg ci politique benn yoon laa voté mooy temps Ablaye Wade Ablaye Wade sax laa voté mais sama njënt bi billaahi wallaahi tallaahi bu dee fen laa wax ni yàlla yàlla atte ma sama bammeel sama diggante ak Serigne Touba sama diggante ak Serigne Moutala yàlla yàlla atte ma sama bammeel bi atte bu métti billaahi nii laa ko gisee audio bi tam lu mu envoyé bu kenn wóolul bu dee wóolugu leen mun naa tegg sama loxo bi ci kaamil ma foto ko wala ngeen woo ma ci vidéo ma tegg sama loo ci kaamil ma waatu envoyé leen sama ngént bi daal nii laa gis parce que man tout le temps damay dem Touba mais ci buntu Serigne Saliou laay lay lay wàcc ci buntu Serigne Saliou am na benn abu garab bu fa nekk man chaque magal la foofu lay nekk bu magal bi jeex am na benn waa ji sax ku xam ku ku xaw a am problème tuuti dépression moom laay nekkal foofu ci buntu. ci bu ci buntu këram bi damay nekk ak moom foofu di di di magale foofu bu magal bi jeex après bu ma pare lay dem ñibbisi su suñu kër gi. sëriñ bi nga jégal ma man daal dama bëgg nga jotal jëpp ci àdduna ci ci même sëriñ mu ñun ñu ci ginnaaw mu Moutala man jaaxanke la mais man murit pire la. bu ma nekkee Sénégal màggal bu ne damay màggal ji màggal bu ne damay màggal ji loolu moom leer nañ la jotal yëpp même Ousmane sax même Ousmane boo ko mënee jotal jotal ko ngénte message bi nga nga bu su la neexee sax nga envoyé ko sama numéro bi mu woo ma mun naa ko expliquer Serigne nga fexe ba mu ko jotee message bi billahi bii ngént bi naa jël naa responsabilité bu kanam yàlla parce que bu leer nañ la lii moom duma duma du fen sax di di dugg affaire boo xam ne yàlla da lay atte surtout nga accusé accusé boo xam ne ay ay suñu waliw ak suñu maam yi ak suñu waajur yu baax yi ñu xam ne dañuy jàng de ñaanal yàlla defal yàlla def lu ne ci dund àdduna kon du ma taxaw man xale bu ndaw 33 ans ma accusé leen mais ma ne leen dama ngénte fekkee ngénte bi fe fen la loolu euh, du ma nangu loolu message bi tas ko àdduna yëpp yëgg ko nga fexe Ousmane jot ko nga fexe boo Sër Moutala jo euh, euh, jot ko numéro numéro bi tam sama gramme bi seen radio bi lu ma envoyé sax dinaa lay envoyé nga xool ko moom tam numéro mi tam dinaa lay envoyé nga lacc ko nga ne ko essayer sa sa benn rakk woowu la France pour nga envoyé ko suñu numéro bi dinaa lay envoyé profil yëpp leer nañ foo waxee bu ñu weddee nga wooma bu la neexee nga wooma ci vidéo am naa fi kaamil ci sama léegi fii mun naa tegg sama loxo mun naa jàpp teg sama loxo waatu sama diggante ak yàlla wala ma ma tegg sama loxo bi ma foto ko envoyé la ko lii moom bii billaahi wala kitaab bi da même ci kanam yàlla mun naa taxaw répéter samay ngént bi ne billaahi wala kitaab loolu moom tiitu mat man dama laa envoyé rek man xooluma dara parce que yàlla lu mu la lu mu la wonal balaa nga noppi ci parce que ci naa keneen mu ne maa bii ngént bu rëy la bul ko bul noppi noonu mun na nekke bii day nekk jàmm loolu moo tax ma fexe ba ma jotee sa numéro bi tas ko nga def ko lu mu la neexee àdduna yëpp yëggi ko ku la wedd nga wooma ma tegg sama loxo ci kaamilu waatu envoyé la ko wala nga wooma vidéo ma tegg sama loxo bi ci kaamil ma nga gis ma bët ak bët waaw loolu moom engage naa ko bii billaahi wal kitaab engagé naa ko parce que bu leer nañ la waaw leen ma de sama olof bi moo leerul noonu quoi kon bii tam nu ma ko ngéntee nii bu leer nañ la sëriñ bi loolu laa la mën a wax eh, xawma la xamoo ma yàlla ak euh, sama grand bi ku ku nekk Touba mooy Ibrahima Dia bi kooku laa woo expliqué ko sama ngénte bi mu ne ma ah man xam naa keneen kuy liggéey ci rajo xaaral dinaa laa envoyé seen site bi boo ko cliqué seen numéro bi day génne foofu numéro portable moo nekk promet numéro fixe moo ci topp après ci laa ci laa la woo dembu nga jégal ma comme dérangé naa la ko nga jégal ma bu baax incha allah man la Kémo Sylla maa ngi lay nuyu bu baax nga nuyel ma waa ba nga nuyel ma sëriñ yi kontaan naa lool jërëjëf jërëjëf jërëjëf nga ci ngalam